sant yàlla julli ci yonent alayhi daal di wax ni euh, jamono ji ñu toll euh, Sénégal dafa am fu mu toll mag yu baax yi di defar di liggéey di góorgóorlu ba ñu toll ci Sénégal bi nga xam ni nekk na gaal gu yéeme gaal gu rafet gaal gu taaru gaal gi nga xam ne ku ko gis bëgg ko ñu dem ba jimmi jamono mm. euh, yeneen jikko yi nga xam ne nekkuloon jikko Sénégal dugg ci biir réew mi kon li ñu war a def mooy jeunesse bi nañu xam ne ñoom ñooy remplacer ñun ñii toog man mii toog di wax ak yéen tey suba sama njaboot ngeen yaakaar mu nekk fii mun leen wax mun leen jàppale mun leen abale ci yoon boo leen ko amatul sama njaboot kon euh, loolu day lu yàqu lay doon parce que garabu mango ba léegi mi ngi meññi mango uh-huh. garabu sapooti mi ngi meññi sapooti uh-huh. garabu tàndar mi ngi meññi tàndarma uh-huh. mais nit aussi li mu daan meññi du ko meññeeti kon amatul njëriñ kon dañuy wax jeunesse bi nañu góor góorlu bàyyi xel ci seen bàyyi xel seen patrimoine defaraat seen jukko yi rasulillahi alayhi salaatu wasalaam li mu nekk yonente bi yàlla tàggu ko ndax yonente ga def ko ni wa innaka la ala xuluqin azim yaa aka yaa rafet jukko yow rasulillahi jukkoy rafet bokk na ci teral mag jukkoy rafet bokk na ci respecté say waajur jukko wax dëgg bokk na ci parce que rasulillahi alayhi salaatu wasalaam dañ ko laaj eh, ndax jullit day mooy mu ni waaw ñun ko ndax jullit day naa sàngara mu ni waaw ñun ko jullit day fer mu ni déedéet kadaabu laysa minna fenkat bokkul ci ñun kon yàlla ñu ci yàlla musal di lancé aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, kilifa diine yi imaam yi boroom kër yi ñu taxawaat ci njaboot bi ba defaral seen njaboot parce que ñooy fruit suba gàncax suba suba ñoom ñooy semence bi mooy jeunesse bi ñu yor gàmm yi nañ ci taxaw di ci yéenit yi waaye gàmm yi bi ñu koy def tàgg Seydina Muhammad moom taxoon a jóg waaye gàmm yi li moo taxoon a jóg mooy waar nit ñi wax leen fi ñu war a jaar ak fi ñu warul jaar mais gàmm pour solo pour fecc pour def lu jaalu yoon. jërëjëf Serigne jërëjëf macha allah ku ko am loo ko bëgg a laaj. non non